baru kemarin Assalamualaikum Waalaikumsalam ah, mon frère dam maa ngi lay ziar ah, seen daam yaa ngi si affaire yi waaw gis nga de man ah. maa ngi maa ngi waari rek waaw maa ngi bu baax d'ailleurs maa ngi la fekk sax si activité bi dëgg la waaye c'est juste sama ñëw tey mhm. c'est juste pour ñu conclure si li nga li nga xam ne maa ngi la ko doon junj tout récemment mhm. muy client yooyu nga xam dañu bëgg investir si def ko immeuble bu mucc ayib boo xam ne daal si tënk maanaam weer bu nekk mën na génn dama ne jarul nga koy àggali lu tax jarul nga koy àggali lan moo tax am na lu ma la waxoon dama ne la tool yi fii ak man maa ngi dund bu sax sonn kenn du ko jaay waaw yow daam yow dafa dof wala la dal yow dama yaakaar ne yow war nga comprendre ci affaire yi toll parce que ndëg bu jëkkoon

ngay ko xam ñun ñii école eh, dafa laa déggul bu baax ñun dinañ am cinquante millions bopp bu nekk cinquante millions esprit bii nga yor esprit bii nga yor bi ma laa dama ne leen bu yeboo ngeen wax cinquante millions ak la xoolal dërëm mille. may ma tuuti ah. sister may ma tuuti. Ah, yow kii da ngeen da ngeen dem da ngeen dem ma wax la da ngeen dem waxtaanee ko seen biir ba pare ba mu ñëw ba maa jaay dama ne leen. xam nga ku xamul amatul foo nooyee amatul kenn nooyee ndax ay jaay xoolante boo xoolee fi ñu wër li ñu wër yëpp lu tuuti moo des ni tey mën na koo la man maa ngi dund tey fii kenn du fi wan ñu entourage beeg ah. wan ñu biir suuf si lañ si yemale bu ñu ñëpp moomu looñu moo moo famille bi la sama jaase sama jaase ngi fee ma teg dama ne la tey ku ñëw tey ne dama ne day jaay tool bi ah? di nga ma rey wala ma rey la loolu mën naa leen ko kon nag waajal sa bopp lii ngay gas jarul dañ ko gasal kenn gasal ko sa bopp gis nga daam moomuloo nit ñi. bu leen sonal seen bopp avant ñuy tukki. lii ngay def nii la ñu doon def yéen da ngeen a war suñu bàyyi yéen da ngeen a war suñu bàyyi parce que suñu bàyyi lenn rek la ñu bàyyi muy tool yi. yow dama ne yow bu la tàddeel rek ay maama ki bàyyi yow moo la tàddeel yow dama ne suñu bàyyi suñu bàyyi lenn rek la ñu bàyyi muy tool yi si ñàkk di jariñu ngeen wax ngeen wax naan ay lu ma xamul dama ne la tool yi mënuloo fexe ba fii ni ko jaay fii ni ko jaay ni ko suñu bay bay woon laa leen wax ni ah, maa ngi dund kenn may ma tuuti dam waaw man nga maa may ñaari wax la may tool yi moom kenn du ko jaay parce que mënuloo jëlee ñu jaay ko dinañ ko jaay ci nii wala ñu jaay ko ci naa. loolu laay fay yow xam nga ne sama jaase ñu fële bu ma xëyee sama jaase ñu fële sama jaase ñu ñeme yow ñeme kan ku ñeme rek na ma jël tool paas ak Samba Ndiaye lañ si yemale moomuloo tool bi moomuloo nit ñi. dama ne dama bëgg a dee. tool yi kenn ku ñeme rek ku ñeme rek ku ñeme rek na ñëw ku ñeme rek dañ koy jaay dañ koy jaay eh nañ dem kii d'accord na nañ dem nañ dem. faalewuñu la. xam nga ku ñeme rek ku ñeme rek na ñëw ku ñeme rek na ñëw. eh yow ku ñeme rek na ñëw ne day jaay coow tool sama jaas sama man solo ma sa jaas nii mi ngi nii ku ñëw taxaw ne danga may du ma si boole wax. d'accord na nañ dem. on a déjà discuté. c'est bon, c'est bon. C'est bon, on a déjà disputé. Pour les l'homme, c'est bien c'est bien. ku ñëw fii ne da nga koy da nga koy jaay. mais ma tuuti. gis nga gis nga gis lan moo tax salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ji leen ziar amaan nañ mbégte ñëwaat si seen biir émission bu doon yow nooy def tey nag mbokk yi moo am histoire bu doy boo xamante ne moo xew fii nga xamante ne terrain la wala boog suufu euh, waajuram suufu maam yi nga xam ne saa su ne ñi ngi dund ay métit yu doy ndax nag amatuñu espace vert espace vert tey jii ñu ñëw fii nga xamante ne benn waay la boo xamante ne moom moo dese li nga xamante mooy suufu maamam ay magam ñoom ñu ngi dëkk ci euh, biir dakaar mun nañ wax waaye moom nee na dafay euh, préserver li nga xamante ne mooy suufu maamam téye ko boobu ba léegi nee na dara jaralu ko mu jaay ko waaye mag ji gisul loolu mag ji li mu gis moom mooy jaay ko li nga xamante ne mooy ay milliards ñu def ci usine mu mun cee am li nga xamante ne mooy xaalis famille bi yëpp mun cee euh, dund lu toll ci cinquante millions ku ci nekk war cee mën a dund moom ak ay famille waaye Eh, kii nga xamante ne moom moo di eh, waa ji nga xamante moom moom eh, suuf si moom gisul loolu moom nee na suufu maamam moo ko gënal moom nee na li mu fi am bu dee dërëm la sax moo ko gënal ndax nag lu mu ci mun ci doon li nga xamante ne mooy nooyi bi bi nit ñi di nooyi rek sax moom doy na ko wala sax nag moom mu xëy di gis ay garab rek doy na ko waaye histoire bii mbokk yi moom ngeen di xool léegi léegi ñu wan leen li nga xamante ne moom moo ci topp léegi lay doon ma dugg xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog jamono ji nga xamante ne ñoom it ay paysan lañ moom ñoom itam seen suuf papa salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di fay. papa nan nga gisee histoire bi nga xamante ne tey jii moom moo am fii mu di koo xamante ne suufam la yor rakkam ne da koy jaay état wala da koy jaay sax koo xamante ne usine la yor mu mu def tabax ci usine am yow nan nga gisee histoire bi. njaayum suuf de moom laa ragal ko. Mm. njaayum suuf moom loo jaay moomatoo ko te suuf sax kenn waru koo jaay. dëgg ci yoon. Mm. Eh, ñun baykat yi bu ñu jaayee suñu suuf dañ koy ñàkk loo jaay ñàkk nga ko mhm. bañ a jaay moo gën lu tax bañ a jaay gën waaw mu li tax mu gën parce que yow da am ay doom say doom dañuy am ay doom mhm. moo tax boo jaayee suuf am na ñoo rey ci ginnaaw mhm. suuf kenn waru koo jaay ñun béykat daal mënuñoo jaay suuf ñun kon béykat jaay suuf daal moom duñ ko def do len koy def te baxul sax baxul waaw ah, baxul d'accord euh, papa yow euh, tamit nga yor li nga xamantene mom modi tol hmm. nan nga gisee espace vert bi nga xamantene amatul ci dëkk bi dëkk bi fépp tabax nañ ko ay étage yu baax ay immeuble yu rafet ay usine yeen nga xamantene ci suuf ngeen di dund nan ngeen di dundé ñak boobu nga xam amatoo leen ko ci suuf yi waaw dañ koy métitlu rek di ko hmm. ndax suuf moom mooy alalu baadool hmm. compte mooy compte bancaire bu ko jaay rek ñàkk na léppam dootu ko dab dañu toll nag ci jamono joo xam ne ji eh, nit ñi dañu jóg ci jaay dañ ko xewal eh, te mesuré wuñu conséquences yi ñëw ca kanam ndax li nga xam ne danga ko bokk ak say njo say frère par exemple ku ci nekk am njaboot ngeen seen i papa bàyyi leen ko fii ngeen war a dem bàyyi leen ko ñoom ngeen wëlbatiku jaay ko toroxal ngeen ñëpp waaw. kon yéen daal pour yéen suuf moom mooy seen dund moom moo nekk seen àdduna ba nga xamantene eh, tay ji bo len ko amul yeen ñi am ay millions am ay milliards sax lay wax tabax seen ay immeuble yeen seen suuf bi mo leen gënal immeuble bobu wa xam nga dank wax ba paré ñi am ay millions ak milliards ñun mm. amuñu ay millions ak milliards suuf si rek lañu am suuf si rek moy suñu banque moy suñu compte bancaire moy mm. suñu dépôt mm. donc lolu tax nanguwuñu ci mënuñu and ci njaay mi waaw mëno leen ci and mënuñ ci and tay lan la eh, ay garab di def ci réew dëkk boo xamante ne ay garab am na fa nan la nan la population boobu di dundee. loolu lu baax a baax la. parce que garab moom boo ko xesee am. gis nga fi nga toog nii. li nga fi am mënoo toog feneen bi am ko tànk toogloo ci biir garab yi. Mhm. parce que forêt moom mooy xéwal foofu la njëkkee. ci taw yeeg ci dàq feebar lépp. ay garab day dàq feebar garab da koy waaw da koy dàq. Mhm. lépp moo koy aar. Mhm. ci doomu aadama. te euh, yemul foofu parce que nag am na garab yu bëri fii yoo xamante ne. Mm-hmm. mën na faj nit. Mm-hmm. ay garab yu bëri nga xamante ne da ngay xooj lii xob yi. Mm-hmm. même li nga euh, même nga taggu ko nga naan lépp mën na ko faj. day faj day faj nit. moo tax garab warul taggoo ak nit. parce que boo gisee feebar yu bari sax. forêt amatul Sénégal. forêt jeex na. pour nga gis ay garab il faut nga dem ci ay dëkk ak dëkk forêt jeex na mhm. moo tax feebar yi gën a bëri poussière yu bari yaa ngi dégg mhm. moo tax euh, ñun daal lu ñu gënaloon mhm. njaay suuf moom xanaa Dakar la yem waaye ci àll bi moom ñu bëree bëri nanguñ te duñ ko def mais yéen da ngeen di toog lu tolloog at di am vingt cinq mille francs muy juróomi junni

Ah. te suuf si du jeex moom. te suuf du jeex. c'est maam maamaat ya ba léegi si suuf si la ñuy dund. Mhm. suuf si du jeex moom. Mhm. njaay suuf sax Dakar bi moo tax ñuy wax mais njaay suuf sax ñun séeréer dañ koy bañ. da ngeen koy bañ. lu tax kenn du baaxul. dafa baaxul boo lekkee suuf dootoo dem. Ah. xaalisu suuf sax kenn du ko lekk. dañoo xamul rek li ñuy def. kon ñiy jaayee dañoo xamul lan la ñu war a def kooku day delloo nit ginnaaw baaxul. d'accord kon ñi nga gis ñi nga xamante ne papa ñoom chaque jour mhm. euh, seen. wax yëpp moom mooy suuf diw ñu ñoo ko suuf bi sama suufu maam la mhm. jël ko di ko jox ay société mhm. lan nga leen di wax waaw loolu réero ak sa say mbokk la mhm. réeroo ak sa askan la itam parce que li nga xam ne comme ni nga wax suñu suufu maam la wëlbati ko jox ko jox ko societé déjà day indi jaxas-jaxas ci biir famille d'ailleurs gis nañ dëkk yu bëri day am ay xeex ay rayante yu bëri voilà ndax loolu ndax suuf ak industrie bi xëj na Euh, del si tuuti ci ginnaaw rek ci li ñuy wax ci garab dëkk bu la ëppi garab moo la gën a néew jàngaru ah. waaw dëkk bu la ëppi garab ay nitam ñoo gën a néew li ñuy feebar waaw ndax gar euh, gàncax li muy euh, aar ci doomu aadama dafa bëri mm-hmm. waaw nga xool nag ci Sénégal dëkk yu fi garab wala quartier garab wala village seen i jàngoro moo gën a néew jàngoro yi ñeneen waaw ndax day protéger gaz carbonique très bien protéger euh, bien euh, yooyu yëpp daf koy protéger naaw di ñëw yëpp garab yi dañ koy capter da kon feebar yi ngay gis biir Dakar ak Sénégal sax la ñuy wax mën nañ jàpp ne loolu yi ci ëpp daal yi ci ëpp daal euh, kii ñàkkum gàncax ñàkkum gàncax moo koy andi d'accord en tant que jeune euh, lan lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, yor mooy paysans yi ñi nga xamante ne ci suuf la ñuy dund lan nga leen di wax kay mënum wax Euh, soxna si yow euh, tamit yaa ngi doon suivre li nga xam moo fi jot am mu di gàncax bi nga xamante ne amatul ci réew mi lan ngay lan ngay wax lan la gàncax mun a def ci réew man daal gàncax moom nu ma ko gisee ci réew moom moom lu baax la ndax comme ni ko suñ mbokk yi waxee rek dafa baax si maanaam wérgu yaram ndax dëkk bu amul garab moom tawféex du fa bëri te en plus waxuma la dara sax mais animaux yi sax duñ mun a nekk waaw ndax si gàncax bi dañuy dundee te en plus si la ñuy si la ñuy maanaam affaire feebar maladie aussi mm. si moom la ñu leen di defaral pour ñu koy mën di naan wala dara mm-hmm. Euh, Eva yow itam nga fekkee li nga xam moo fi am te dégg nañ sax ñu ne rab yi nga xamante ni ñooy dugg nit ñi ci garab yi nga xamante ne moom la ñuy dagg ci la ñuy génnee. waaw ci la ñuy génnee loolu moom dañ koy wax suñu maame dégg suñu maame di ko wax mm-hmm. ci la ñuy génne mais garab. dafa am solo ci nit ndax damay dégg ñu naan ku nekk war ngaa mën a jëmbat garab avant ngay dee loolu damay dégg war damay faral ñu koy def mais nañ jàppoo bu baax a baax pour comme daam nu mu def nii mm. fii bu kenn du jaay suuf si keneen yeneen ñett buñ ko defoon dinañ jëm kanam waaw nañ manko bu baax a baax di di xeex loolu espace vert dafa war a am ci li nga xamante ne euh, moom mooy euh, réew mi euh, yow am yow itam nga bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ doon jël dañ doon jël li nga xamante ne moom mooy seen suufu euh, waajur yi te yow fan nga ko teg ah ñëw nekk benn boy taawoon rek bëgg nangu sa suufu euh, mag loolu fan nga ko teg waaw fi ñu ko teg certes euh, neex naa expliquer hmm. bi si jiitu mooy dañuy gis ne tool yi généralement famille dañ koy bokk waaye buñ ko bokkee ba noppi hmm. parfois mode bi ñu koy utiliser du servir ki fa nek sax bay servir la famille léegi nek euh, comme tamit euh, dañ nek dans un pays bo xamné chaque jour mu ngi pousser dans le développement mm-hmm. on est obligé de le faire mm-hmm. tay tol bi nga xamné dafa concerner tay ben nit wala ñaar wala ñett mm-hmm. ñu ci foratu ay 100 francs 200 par jour ñu man ko jël tay euh, defarat ko def ko immeuble bo xamné immeuble bu muccu ayib lay nek bo xamné dina mën produire lu bari waye dina mën tay tey suqali famille bi à 100%. je pense que lol tamit c'est un intérêt bo xamné ne kenn waru ko bañ ñun dëkk fofu la ñu sukkandiku parce que avant ñuy dem

ñi nga xam ne ñoo yor les moyens ñu indi leen ñu investir si tool bi bu ñu investir si tool bi suba mën na ma permettre man ma dem si pousser tuuti ndax fen soreetul ma mhm. pousser tuuti utaat feneen tool nga pousse utaat beneen tool moom mu pousse utaat beneen tool mais yow da, pour yow développement mi ngi nekk ci ay immeuble ak yooyu waaw euh, certes man si man mhm. parce que tamit fi bo xolé tay yi ni ay 100 francs lay jar ay 200 et 300. mais buñ ko mané améliorer de telle forme bo xamné tay tey dina nekk euh, benn immeuble bu mag.

cramponné wu fa mm. nañuy nangu di waxtaan Euh, parce que waxtaan moy indi solution. Mhm. tol bi depuis des années mu ngi exister. Mhm. deug la certes mu ngi produire ay garab et tout. Mhm. waye en réalité amul ben avantage bu mu amal la famille. du korité du tebeski du tamxarit du ben bis. loolu ba kañ. ba kañ euh, loolu ba ah, kañ mbokk yi nee mom moom euh, li muy produire mi ngi ci juste ci famille bi mënul jënd dara mënul def dara lo xamantene ne dina servir ki nga xamantene mom modi famille ma ñëw ci ñi nga xamantene ñom ñoo bëgg jënd li nga xamantene moy tolu waa ji sëñ bi yéen ngeen jóge ci àll ba rek ñëw fekk koo xamante ne mu ngi liggéey ci toolam ngeen ne da ngeen koy jënd lan moo leen jox raison boobu. Euh, non non du question lan moo ñu jox raison bi du du du xëy ñu xëy rek ne dañ koy jënd ñun dañoo gis nikku ku ne am nga sañ-sañu am sa xaalis. Mm. xool li la li nga bëgg ñu ndax day jaay. Mm. soit ñun la waaw wala déet. Mm. mais ñun dañoo xool ba mu ni carrément que ni day jaay. ñun aussi ñu ñëw bëgg jënd. mais bi ñu ñëwee nag ba jënd ba ñëw taxaw. Euh, par waa ji moom li mu wax. ak di frère bi wax bokk bokkul xamuñu ci woon dara dañoo ñëw ba fekkee scandale fii si seen kanam xuloo beeg loolu yëpp mhm. lépp mi ngi fi seen kanam mais ñun suñu problème mooy que waa ji wax nañoo moom ba pare ba def ak moom signature ba def lépp mhm. mais frère bi d'accordul xam nga mhm. essentiel li ma li ma ci mën a comprendre mooy waxtaan amul woon entre ñoom moom ak avant ak kii kon li gënoon mooy ñoom ñaar ñu waxtaan ba pare. ba d'accord ci sujet. ndax ñoom ñoom ñaar ñoo ko bokk après ñu doog a ñu doog a ñëw. d'accord ñu foofu lañ tolloogum quoi pour l'instant. d'accord foofu ngeen tolloogul pour l'instant soxna si yow itam nga ñëw pour jënd yow euh, li nga gis fii yëpp lan la la jàngal est-ce que da ngay jënd continuer di jënd ba léegi wala da ngay teg sa loxo. bon ñun dañoo yor suñu xaalis rek di jënd. jënd bu ñu gisee lu ñu arrangé tamit dañ koy jënd. n'est-ce mais da nga ñëw fekk ay famille di ci xuloo. mais ñun xamuñu woon ah. mais non ñun dañoo ñëw waxaale te ki ñuy waxal liñ naan ñàkk déggoo ci famille. dafa am ci ñi te looloo leen dal. Mm-hmm. parce que ñun dañoo ñëw xamuñu woon ni. waxtaan na ak frère am je sais pas kan moom moom tool bi mm-hmm. mais ki ñu waxal koo xamante ne ni dafa ñëw nañu mm-hmm. moom da koy daf ñu koy jaay ñun du ñu def lu dul signer suñu contrat même su fekkente ne am na problème parce que bul bul fàtte ne ñoom ñaar déggoowuñu ba léegi eh, non ñun xamuñu woon ni amul non maintenant que ngeen xam ko non maintenant ñu xam am ko xam nga dañu am loo xam ne dañ naan contrat la dañ koo signé ba pare ak waa ji mm-hmm. te waa ji ñun dugal nañ suñu xaalis ci moom mm-hmm. jox nañ ko cinquante léegi moom dafa ñu war a defar livraison livraison chaque mois millions c'est déjà réglé déjà ah. c'est beaucoup d'argent pour nous hein. ah, franchement c'est ça il faut qu'on... C'est un vrai problème erreur de communication la mm. moom moo am kenn nag bëggul ñëw fekk alalu jàmbur di ko fokkati ndax ëllëg parfois day am da ngay gis ñi jënd dara ñu koy sikk fekk du moom fekk mm. ñoom ñoom ñoo waxtaanoon li ñu war a waxtaanee mm. pour que mu war a mën a jënd affaire bi ni mu ko war a bu fekkoon frère bi wax nañu ni ah lii de mooy problème bi mais daañu la ko jaay ñun daañu xaaru avant ñu dugal suñu xaalis mais dugal nañ suñu xaalis frère bi signé na te frère bi mi ngi ñëw naanoon d' accord sa ok frère bi ñoo ne que d' d'accord c'est ok bu doon man moom itam bu doon man uh-huh. Uh-huh. Euh, balaa may naan waaw bay signé contrat ak ñun da ngay waxtaan ak sa famille ba pare parce que famille yu bëri yu am ay link yi genre yi dong ñoo koy waral bu doon man damay waxtaan ak ñun neena mom bu doon mom day waxtaan ak mom ba paré waye euh duñ nenañ tunguna du ñuy natal ki nga xamantene mom borom euh, tol bi mi ngi ni señ bi ñu nuyu la bu baax li fi am la ngapai, nga bañ ak li fi am pour lan xam nga li fi jot am dafa nekk loo xamante ni ñoom dañoo jàpp ci wàllu xaalis a tax ma bañ. tey bu fekkee tey bu fekkee tey Sénégal mm. fi nga xamante ni espace vert yëpp la wala fi nga xamante ni tool dafa nekk. Mm. wala gàncax ñu jaay ko. Mm. kon tey rabu àll fi ñuy dugg fan la rabu àll yi di jëm. dañ leen war a tey boo xoolee Sénégal lu ndaw rek laa lay jox. ñu ngi naan diw raba ko jàpp diw raba ko jàpp mais bu ñu dëkkee fi nga xamante ni fa la rab yi waroon dëkk mais rab yi ni ñuy def dañuy ñëw bokk ak ñoom fi ñu dëkk nit ñaa ngi dee façon dee bu nekk da ngay jëyee dégg ñu ne nit taal na boppam lu tax mu taal boppam kenn xamul est-ce que du rab fi nga fi fa la fa waroon dëkk est-ce que du ñoom ñoo ñëw foofu te mënatoo dox 50 mètres yoo xamante gisoo koo xamante xel mi neexul ba pare li si gën a garaawaat tey boo xoolee xet gu neex nga xamante ni da nga ko doon dox di ko noyyi mënatoo koo am mhm. ñoom ñoom jiitaluñu loolu mais ñoom lépp lu ñu gis moom mooy xaalis est-ce que moom mooy xaalis kese kese mooy bànneexu àdduna est-ce que xaalis kese kese mooy bànneexu àdduna question la boo xamante ne yaa ngi koy posé xam naa ne bokk internet yi dinañ ci daal di tontu tey lii lañ leen indil ci li nga xamante ne moom mooy seen mission bi di euh, noo bu doon yow nooy def émission bi nag xam ngeen ko saa su ne fu problème am ñun dinañ fa ñëw taxaw waaye fu problème am jàpp leen ne Sénégal TV dina ñëw taxaw génne ko wane ko bu ko defee ku ci nekk wax ci xalaatam numéro yi ngeen mën a wootee mbokk yi xam ngeen ko 77 la 127 07 14 77 127 07 14 bu ko defee ñu daal di ñëw ànd ak yéen ci métti yi nga xamante ne yéen nga koy dund wala problème bu mu munti doon beneen yoon incha allah ñu ñëwaat indiwaat beneen thème bokk ko ak yéen mbokk yi. ba